إنما تنذر من اتبع الشكر وخشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أخشيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم مسنين فكذبوهما فعززنا بصالح فقالوا إنا إليكم المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنشل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ المبين صدق الله العظيم وبلغ رسول المصطفى الكريم yaa ngeen jënd déglu li ñuy wax ngir ngeen mën see jàngee ki war a waxtaan mooy kan mooy al imam Mohamed Seck nekk suñu xarit suñu doomu ndey suñu lépp ñu bokk dem daara ja fële sa njaareem ànd sukk ba di jàng di jàng kuwaat ak lu ne si njàng mi 99 fa la ñu fekk kon yàgg na lool nekk sa daara ji mu metti lool waaye lool lépp ñu ànd ak muñ nu daara ji naqari naqari naqari ñu muñ ko toog bi ñuy jàng daara ji booba amagul courant ànd ak loolu lépp amoon ay jàngalekat yoo xam ne nii dañoo may dañoo mel ni jësit wala mel ni gaynda li may wax ñi jaar Jurbel xam nañ ko jàngalekat yi tàng jër mbaar mi tàng jër ànd bu ne ñu di ko dékkoonte man ak moom ba niñ taree alquran al karim waaye avant ñuy tari dañ nañ de wallaay dañ ne moo tax bu taxawee di wax jaar na fu mu ja am na fu mu jaar de am na fu mu jaar de sonnoon nañ lool sa daara ndax daara ja lu ne amoon na ko diggante fel ak mat ak teeñ ku ne xam ne day topp ab taalibe te loolu topp na ko topp ñi waaye tey jeex na kon lu waay muñ mu jeex lu mu muñul nag coono rek ba yàlla teg ko rek wala ba nga jigéen ko kon ñi teewlu kii war a waxtaan mooy kan ak li mu waxtaan waaye laata loolu dañ fay dajee ay mbokk yi fasantikoo dajee fii ci barab bi nii gëm li ñu gëm tax ñu woote te damay wax ne ñetti ñii ak ñu mel ni ñoom waaye dama see tënk ñetti ñii ñu yóbbaale ñu ci sa ñëpp maam Seydi Hadji Malick maam Alhaji Abdoulaye Niass maam Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ñett ñii su ma leen tuddee ñu yóbbaale mboolem toroxu yi diini yëpp ci Sénégal ñett ñi ndax xam ngeen seen jaar-jaar Alxaaji Abdoulaye Niass maam Alaaji Malick maam Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul Seydi Hadji Malick moo njëkk génn génn àddina Alxaaji Abdoulaye Niass semaine la ñu rawante ñoom ñaar talaatay Tiwaawoon àllarbay Ñaseen noonu la demee maam Sidi Hadji Malick moo génn àddina talaata ba talaata ba dellusi àllarba ja alxaaji Abdoulaye Niass wuy ji boromam ñi teg si juróomi at di 1927 Cheikh Ahmad Bamba wuy ji boromam waykat ba way ko moom euh, sëñ Mbacke Boussa ne samsun wa samsun ama samsin xaabata allahu akbar fa bakal wara li takaasufil aslam samsun di jant bi alhaaji Malick Sy wa samsun di jant bi alhaaji Abdoulaye Niass ama samsin rabata camat bamba xaadimu rasul muy 1927 ñetti ñi nag bu ñu àndee dëddu génn àddina fa bakkal wara li takaasafil aslam àddina daal di lëndëm turus njàqare daal di ñëw ndax tiit nañ jàq nañ ndax yëg nañ ne ñetti ponkal ñi ànd nañ génn àddina tabaarakalaa kon àddina amatu solo kon li des mooy fexe xam li ñu fi yàlla andee du lekk rek tëdd rek wala caaxaan rek wala leneen ak leneen koo ne baaxoo mu mer koo ne baax mu ne waa gor waaye kon nañ fexe ba defar suñu bopp ndem nañ roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ fexe ba defar suñu bopp Cheikh Ahmad Bamba ku ko topp topp lam nekk bokk nga si ñu gëm Seydi Hadji Malick noonu alhaji Abdoulaye Niass noonu Cheikh alhaji Omar Ndaw noonu Limaamu Laay noonu ak mboolem turuqu diini yëpp canaba canaba ñoom ñëpp si lii lañ nekkoon teg seen tànk si siraatal mustaqim si tarbiyatul arwah wa zaat lahu tasarrufu fil akwaani ajmaiha kasaaka tarbiyatul arwahi wa zaat maanaam ya fexe ba yar ruux yi fexe ba defar jëmm yi jëmm yi nag suñ ko defaree sa lay nekk si naasiril xaq bil xaqi wala laa ilaha illallah wala astaghfirullah tabaarakallahu mboolem xeeti sabbal yëpp jëmm ju set wecc mooy mën a def loolu noonu. kon ñi teewlu ba dëndu moo wax de jukki yi ndax jukki yi yàqu na dëkkandoo yi tabaarakallahu ñu ngi ŋàññante lu ne si jamono ji ne ah heureusement daal mën naa wax ne ñëw waaye kon tabaarakallahu ñi dégloo may ko nopp incha allah moo indi lim ñu kon sang bi bismillah tafaddal maskuran mahjura الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتبارك العركات وتدعم الحسنات ثم الصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد قبلة الأرواح وجنة الكعبة بالإسلام mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ma jullee ci leen bi santi sant yi maa ngi nuyu ku ne ci turam ci santam waaye di jafet lu toogaay bi di jégal kër ñi fi toog yëpp waaye di nuyu doomu soxna yi yoroon tànt bi yëpp bàyyiwuma kenn mu mel ni nag ñëwaat nañ si bërëb boo xamante ni bërëb buñ biin la ci njiital laa ci kamaram yi nga xamante ni suñu làkki bopp la yàlla def ñu doyloo ñu lool ba lii biñ ko jàppee ba léegi mi ngi ñu topp di ñu woo téléphone di ñu wax ni bis bi ñu koy waajal Euh, ba sax nag dem na ba di ma woon kañ ngay ñëw man ne ko ah, bëgg naa midi fekk ma mun ma midi day day gàtt ndax a ak ndékki yëpp ñu la ko fi tegal kon gaawantul nga ñëw kon moom yàkkamti woon na bés bi waaye loolu la xëram la rek su ko defee nag yooyu ak yitte ju kawe yooyu ñu ko ci sant di ko gërëm di ko ñaanal waaye di nuyu mbokki boppam yi nga xam ci moom ndax nag damay wax ni dëgg dëgg ndabal taranga maanaam sukk ko ba mu xat moom moo gën foofu ci bokk ci boppam tey loolu nag su ma ko waxee wax naa ay mbokki boppam ndax lu mu am di mbokkam mbokkam moom benn deret ñi ngi ñu toog ndax Seydina Aliou tam ñuy toog di magam yoo xamante nii ñoom ñoo bokk ndey ak bàyyi te damay wax ni néew sa deret nangul la comme ni mu ko amee moom loolu nag dëgg-dëgg teraanga la waaye daraja la euh, ndax li lay xamal ni daraja la nit ku nekk bu fekkee yenn bokk del nga xam li xam yaa ngi jéem a wuti la mu am waaye nag loolu sakkanut fexe ba booloo fexe ba booloo moom moo gën fuuf jàqali ko ndax dafa am mel mag moo xamante ni yàlla dafa dogalan dafa dem ba mu jëg jamono euh, mu leer fa ni mi ngi tàggatoo am bés mu woolu taaw ba jox ko benn bant ni ko dammal bisimilah yaa seex seydi ayo bisimilah mu jox ko benn euh, bant ne ko dammal bi mu ko joxee bant bi ni ko damal mu damm ko waaye mu leen ñoom ñëpp nag ku nekk andi bant bi ñu andee bant nag mu dajale ko jox ko taaw ba ni ko damal mu damm damm mu tëkk mu ne ko lii rek la su ngeen séparé kenn kenn dañ leen dañ leen teel a faagaagal waaye su ngeen juboo nekk benn ak benn xàccandoo dóorandoo kenn di leen dara loolu sax moo tax nga dégg tubaab yi i union fee la force mbooloo moom mooy doole kon nag yàlla yàlla defal loolu alaaji ci say mbokk Seydina Camara mi nekk ci bopp yal na yàlla téeñal ko yàlla defal ko jàmm defal ko sutura ak rakkam yu àndal yëpp rakk euh, nuyu tamit waa këram bi nga xam ni jigéen ñi jigéen ñi nga xam ne dalee ko ci yaayam ak lam faam yëpp ñëpp ñëw nañ tey rot si fii sagal si ko waaye tamit ñi nga nuyu suñ xalifa suñ sëriñ alaaji Mouhamed Fall Manka mi nga xamante ni ci keppaaram lañ yaroo ba tey moo tax ñu ñu xam ñun ñu xam ni ci kër gi yëpp kon ñu ngi koy nuyu di ko siyaar di ko wàcce wàcce waayam waaye di nuyu waa Farafeñe yëpp di nuyu waa Gambie yëpp nag di nuyu mboolem ñi ma jàkkaarloo di seetaan maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu tamit jàngkat yi di leen siyaar bu baax di ñaan yàlla yàlla wéral seen ay baat yàlla wéral seen ay baat ba su ngeen àddoo mu neex su ngeen waxee mu neex yàlla inter yàlla national ci leen ba ngeen saf sàpp mu international ci leen loolu yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def waaye tamit di nuyu jigéen ñi moo xam jigéen ñi ci daayira bi la moo xam jigéen ñi nga xamante ni moo ki dëkk doole ndax it wax dëgg yàlla olof day wax ni ku tudd dëkk da nga wal ndax nit ki mën ngaa xewle waaye bi nga xewlee ñëpp ñëw wuy si la waaye nag kon bu la wuy rek buñ la wuy see rek war ngaa sant war a gërëm na jigéen mbiram jigéen jigéen lu mu bokkut baaxul ñoom la yàlla jox daraja joo xamante ni luñ bokkut baaxul ndax bi ñëwee nag la mbir bi commencé changé te ñoom ñooy togg togg yi ñooy def lépp kon ña waañ waa ñu ci daayira ba ñu ngi bokk nuyu ñëpp di nuyu nag mu laay sama xarit bopp la nit la koo xam ne ni ku baax ndax depuis alaaji jàpp ma ba léegi la ma jàppoon wàññiwul sama cër dara ndax saa su nekk ñu ngi déggante ndax bis bii may def programme waxtaan wi tey tey mos nañ ma ko tuddee te loolu yaakaar naa mi ngi jaaroon ci moom kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla dëgëral ko yàlla kàttanal ko yàggali njàngam yaa rabbi di nuyu ñëpp di ñëpp mu mel ni nii nga xamante ni moom laay waxee rek moom laay fotoxloo na dugg ci thème bi nga xamante ni moo ñu fi indi lii xaaj di njàmba olof yi nee na mu mel ni nag alaaji daf maa woowoon sant ma ñaari yëf ma ni ko ñaar yëfee ba ak ban la mu mën a nga fexe ba waxtaan ci jiwu ak dëkkandoo waaye nag na nga fexe ba soññaat ndaw yi ñu yar leen yar boo xamante ne dina jël ci yaru cofeel maanaam fexe ba tàggat soo moom jëmale ko ci cofeel mu mel nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu saxal diine mahabbatu am na li nga xamante ni moom moo cofeel boo xam ma sëkk la ndax nit bu fekkee seen xol yi yàlla lu ko lam lay wax doo ko mën a dégg il faut que yàlla jël xol yi dëppale ko lim la wax koo a dégg li nga xamante ni moom mooy sëy sax nga xamante ni moom mooy forme de famille moom mooy defar kër la ci ëpp d'abord moom mooy amour te mooy bëggante bu bëggante amut soo waxee ku jigéen ki mën na laa saaga wala mu dëkkal feneen kon ndekete doomu aadama bi lépp yàlla mi ko def ci cofeel moromum ak morom doomu aadama fi la nit jaamee kon ndekete dajee sax wala boog bokk yoo xamante ni ñi ngi yëkkat di dóoram dóor daa fekk jëfandikoo man eh, wóoroo mën naa am ba na nag loolu jar nay bàyyi xel ci jamono ju mu nekk bàyyi xel xam ne daal rafet jikko wala boog àq li nga xamante ni moom mooy àq jikko ndóog yooyu yëpp ci xeeti rafet jikko rafet rafet lañ koy bàyyi xel. rafet jiko nag moom moo nekk li nga xamante ni moom moo gën a kawee ci saraatul islam ci dëkkandoo wala ci jëflante bu mën ci doon su ko defee nag su boobaa nag ku ci nekk wax. bu amee wala wax yoo xamante dafa jëm ci wàllu xol dina tax nga mën a ubbi sa xol euh, jëmale ci sa morom ba sa morom lépp loo xamante ni bëgg nga ko ci moom mu am lépp lu bëgg ci yow mu am waaye bu fekkee xol ji boobu sax daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax da ngay gis ni bi nga xamante ni def na daawam boo nga xamante ni yàlla dogal na mi ngi bëgg a jeexal ne woon na dama leen dénk baat yoo xamante ni baat yooyu su ngeen ko defee da ngeen juboo da ngeen soppante ba faaw ñu ne yooyu baat yàlla mu ne ngeen di siiwal nuyoo ci seen diggante te da ngay gis ni asalaam moom mooy baatam nuyoo te islam sax baatam salaam ci lañ ko xaroo te mooy jàmm kon ndekete jàmm wala boog juboo ci wàllu xol bu am bëggante dafa am kon nag nit ku nekk li nga jàpp da def sa kenn laay kàttan fexe ba nooyal sa xol man cee jëriñu ndax loolu neex naa comprendre bu baax léegi nga gis jëmm joo xamante ni yàlla dina ko may cër yu kawe. maanaam cër yoo xamante ni cër comme cër yi wan organes yu baax mu am doole am kàttan yaa ngi dégg baax poitrine dundam baax bu mën a daw cent kilomètres taatu xeexet yow doo man loolu ndax doo wéer du mel noonu ndax lépp ndaw ngay doon waaye nag la nga sañ la nga sañ ci mbiru yàlla moom sañu ko lool lu waral loolu xol ba kon dama bëgg a wax ni yàlla bu fekkoon ni avion la aéroport am mooy xol doomu aadama ndax yow ma laa yen fong maalun wala bannu na illa man atallah bi qalbin salim kay fekk ci alquran mu mel ni nag ci xol yooyu saytaane dafa samp saatiram yàlla samp saatiram su ko defee mooy moom nga dégg doomu aadama bi mën naa jaamu yàlla ba yegg ci ulaykum saxul bariya waaye ula waaye mën na jaamu yàlla ba àgg ci ulaykum xayrul bariya kon bu fekkee àgg na ci ulaykum xayrul bariya mooy jaamu na yàlla bu yegg mën naa yegg ci kàccoor nag ba yegg ci ulaykum saxul bariya kon xol boobu la doom doomu aadama di xëccoo pour gañe ko xol boobu nag li gën a gaaw ci joyanti ko moom mooy cofeel kon ndekete rëng-rëng wala jaay doole munoo cee fexe munoo cee régler lu bari kon nit da ngay fexe ba orienté say bëgg-bëgg ci moom man koo koo ndil man koo jëme fa nga bëgg a jëm fa nga bëgg nga mu jëme ko fa kon foog nga orienté bëgg-bëggam ci moom loola nag jikkoy sang dëgg moo ko man ndax nit ñi boo ànd ñoom lépp loo xamante nii bëgg nañ ko rek nga bàyyee leen ko waaye lépp loo xamante ni am nga rek nga jox leen bañ a bëgg dara comme ni ma gis alaaji stratégie bii muy doxalee bu boobaa nag man ngaa am ku ne bu caaxaan jeexee dëgg des nag man ngaa am ku ne kon nag su boobaa nag nañ bàyyi xel ni daal njiit wala jox nit sa xol du ndawee du ndawee àdduna nag bul sonn yàlla dafañ la na nga jaamu sa borom waa jaamoo sa boroom nga fonk sa boroom jot li ko sa borom ànd dem jënd sa borom lii doo ko fi am kon nag nañ bàyyi xel ni wàllam tarbihatul arwaax gis fi gis mi na loolu mënta am lu bëggante am su boobaa nag kii yor jikkooy ji yoo xamante ne jikkooy saydaan la wala xelam saydaane ah, loola du ko neex man naam du ñàkk mu ciy wax mu ciy wax naan lii daal baaxul parce que xale bu ndaw topp ñii wala xale bu ndaw mi nga ànd ak xale bu ndaw mi ngi def lii loolu rek dëgg-dëgg day di jaxase yàlla noo ko gëmee ak foo ko gëmee rek bunt boobu fekk yaa ngi kon ne di ko fëgg rek suñ borom di la neenal kon nekk ci njub moom moo solo ndaw nag damay wax ni bu ko yàlla dimbalee muy góor di jigéen yàlla orienté ko leeralal ko defal ko mbaax defal ko tawfiix ilaahi mu teel a xam li nga xamante ni moom mooy gindeekoom ci doomu aadama su ko defee nag su boobaa doomu aadama jooju doomu aadama bu jël doon jaar nañu topp ko moo xam góor la moo xam jigéen kon lool jar naa bàyyi xel baax rawat na nag ndaw loo xamante ni ñu ngi lay gindi di la wax li nga xamante ni moom mooy xaqul waalidayni ndax dañoo wax ni suxtul waalidayni moom mooy suxtullah birrul waalidayni moom mooy birrullah kon loolu it nañ bàyyi xel ne saxal nañ ko daal di xam ne képp koo xamante ni baax nga jëm ci say waa wayjur rek yaa ngi def mbaax ak yàlla waaye boo sànjatee jëm ci say wayjur rek def nga sànjat yàlla te yàlla damay wax ni su yàlla dogoy nga sàn bu sànjat la damay wax ni butéel nga boo xamante ni bu toj nga kenn dootu la gaar kon nañ góorgóorlu si gerte lay la lay kàttan ci ñi nga xamante ni moom lañ fi am ci ay wayjur ndax alquran ba alquran jeex yàlla ba mu ne wax budul laa وبد والدين إحسانا لجتك وأنا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف أوف nag bari na lool أوف nag ñu bari ci mufassiru ne niñ ko firee daanaka dafa yaatu léegi ndax 2009 bi ñu firi alxuraan ak léegi uuf gën naa garaaw léegi uuf léegi dangay ngay kilifa nga dem ba laax dara sànni te sànni la ko bu fekkee xool nañ ko ci mbiri administration saaga lay fii te da ngay sànni loxo wala loolu doy sa sax li mu wax sa dama kaa defut noonu ndayam def loolu da ngay gis ku koy wax kon nag uf kenn waru ko wax te yàlla bañ wax la utilisé baata uf nag mooy wax ba da ngay uf wala ngay ngóo bi wala ngay def leen loolu it baaxul kon loolu lu sakkal nañ ci gën a bàyyi xel xam nit dëgg yàlla yàlla bu fekkee ni moom rafetal jëm ci waay waaju waaju gannaaw bu paaram génnee nee na paar bi ci doom yëpp nag ñu ngi tardé ci way jur yi waaye doom yëpp nag ñu ngi amee ñu ngi amee teg bu leer leer ci way kon loolu nañ ci gën a bàyyi xel lu baax waaye nag yàlla dafa am nu mu bindee àddunaam bi lawoon dafa woon nekk ci lu bari ku nekk sa sens ku nekk ak sa wërsëg ndax dafa am menn mag nga doon waxtaanal te jamono jële passé laataa ñuy koor mu amoon seen nas soxnaam benn xale bi ñu ko dénk yàlla dogal am ku ñëw ba ñëw di feeñal mbëggeelam ci moom bi muy feeñal mbëggeelam ci moom ñëw wax si ma ko ma ne ko ah, soo ko xamanee may de moom moo gën ndax li ñuy seet ci ci ci moom yëpp am na ndax boroom diine la boroom diine la en même temps tamit borom lislaam la waaye nag bu ñëwee ngeen xamta woo lan mooy profession lan mooy liggéeyam di xool ba xam ñaata lañ ko war a jox ak ñaata lañ ko war a may ma ko loolu day di jafe-jafe ndax ku nekk ak sa sens ku nekk ak sa wërsëg léegi ku nekk ak sa sens ku nekk ak sa wërsëg bàyyi yu njëkk yee nañ jàngee alxuraan ak niñ ko wattoo ak niñ ko ko niñ ko firee ak niñ ko goreelee fekk ñu si ñun ñi waaye nag yàlla moo doxal loolu ku nekk ak sa sens kon jigéen ñu njëkk ña nañ xam ne ñi kiñ doon lal kiñ doon may lal ak ki doon lay ki ñu may montre ak rajo ak télévision ñu dem ba jamono jooju lal ak montre ak télévision yëpp xeewi na. léegi jamono ji bu may amee dañuy yëkk téléphone iPhone bu cher rek jox la wala yaa ngi lijjanti la muy liggéey lan la ak lan lan lan ci lan la bokk. waaw yow mi koy lijjanti yooyu de yowee la leer ni ci ah baaxu kilifa wala nattab kilifa wala joxañab kilifa ci nga demee woon loolu it nañ koy xoolaat àdduna ku nekk ak sa cër. at na ku nekk ak sa cër su boobaa nag ku nekk ak sa cër li la yàlla defal da ngay xam ne man lii la ma yàlla tombale lii laa war a nangu su ko defee nag su boobaa suñ defee loolu wala société bi wala xale yi nañ mën a continuer déggal mag ñi su ko defee xale da koy nax ba dimbale ko maam Borom Tuubaa moo doon wax ni ko xale da koy nax ba dimbale ko waaye soo ko jaayee doole rek mën naa am du ñàkk li nga bëgg day xaw a échec kon su boobaa loolu na si ñëpp gën a bàyyi xel xam ni daal. jëflante tey daal wala jëflante yi wala ki nga xamante ni moom mooy woy jur wi dafa war a dimbal xale bi ndax yàlla dafa wax ci alquran innama amwaalukum wala awlaadukum fitna kon mënoo fexe ba fitna mënul nekk ci ki nga xamante ni moom la yàlla booleel gën ci ko yàllaay wax ci alquran ba mu ci ñetti gëñ wa tiini wa zaytuuni muy gëñ bu njëkk wa tuuni wa zaytuuni wa tuuri siiniina wa haazal balad lami ni laq daxalax na loolu yëpp laq daxalax na lisaan fi ansani taqwa bi kon doomu aadama ndeke du ay caaxaan de kon doomu aadama ju nekk nag war naa fexe xab xam boppam waaye mu xam boromam su ko defee nag loola nag ki ci nekk di ko di ko di ko di ko tarbiya toujours mu nekk di ko defar dafa am sanru signe buy nekk ci moom maanaam ñu bari mën naa continuer di ko een te fekk een boobu ñu koy een nag bu xotam xalam maanaam xol mi bu xatee rek man naa ba bañ a mën ndax réussir euh, combat am ndax li kulli nabiyyin aduwwan minal na ngay fekk ci alxuraan yàlla wax ci alxuraan ni bépp noonu bépp ku baax wala bépp nabi wala bépp mursal wala képp koo xam ne jaar nga yoonu mursal di nga am noonu li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimiina loolu da nga ko fekk ci alxuraan kon su boobaa nag képp ku sol daal lu mbaax muy di jigéen noo def am di nga yi may développé. fexe kon fexe pour nga defal sa a day jafe waaye nag na nga fàttali ni kooku nga bàyyi xel ni mën naa mu bokk ci gaa yi église yi gaa yi église naa mu bokk ci ndax moom la waxoon suñu borom ba suñu borom defal ko garanti dafa ñëwoon ko la aqa'adanna siraataka al-mustaqima summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim kon moom programme la joxoon suñu borom dem na ba ñi nga xamante ni sax dañ iblis dafa nekk seen biir maanaam daf leen di continuer leen def waaye nag da ba muy wax da ne ko inna ibadillahi sallaka inna ibadillahi sallaka jooju nag boo ci bokkee dëgg-dëgg mu tarxiis loolu dafay daal di jafe gis nga sax yàlla dafa yéeme am na ci saar boo xam ñu koy wax qul a'uuzu bi rabbil falaq yàlla qul a'uuzu bi rabbil falaq qul a'uuzu bi rabbin naas yaa ngi gis yàlla ñaari rabbi la def foofu noonu ñetti rabbi di muslu leen kese qul a'uuzu bi rabbin maliki naasi ilaahi naasi kon tudd na ñetti turu yàlla pour mos la mel ni biir waaye ñetti turu yàlla yooyu mu tudd soo koy firi si jamono ji da wax ni ndaw ñii xolonse bi rabbi naasi boo juddoo nekk liir li ngay soxla moom mooy rabbu ku la topp ku toppatoo ku la jox nga naan ku la jox nga lekk ba doo fexe fexe fexe ba yàqu. bu ko bu ñëwee ko ci état boobu yaa ngi jëm maliki naasi bu fekkee na état boobu échec nga fa. yaa ngi jëm maliki naas yi maliki naas nag moom boo fa xasee yegg moom mooy buur moo la mën a conduire buur bi ñu mooy alkaati wala zëmi bu fekkee da ngaa toll maliki naas yi si ngay toll ci étape boo xam ne ngay sol weeri gannaaw te fekk weeri te fekk bëri gannaaw amul ngay wàcc sa tubay te fekk sa tubay wàccul ngay watt sa ngay watt sa bopp bi watt boo xamante ni wat bi yaa ngi koy bàyyi def yoon ci digg ñu laaj la nga ne yoon la bu fekk yonent waxoon na la ixlaqu kullahum aw taraku kullahum mooy maliki naas yi illaahi naas nag moom mooy yàllaay mag ñi mag bu demee ba toll benn étape bi soxlawu dul yàlla illaahi naas yi boo fa xasee yegg yàlla nee na boo sànkee sa ndaw ak kooku mën ci sàngee ñëwal ci illaahi naas yi mën naa laa téye mën naa laa yor kon yàlla ñetti tur yàlla la utilisé foofu muslim mel ni pour mbir moomuy muslim na du dara man illaahi naas min sarril waswaasil xannaas mbir moo xam yow yaa ko bind moom mooy jax nit ku nekk war naa góorgóorlu ba minimum ba sàmm diineem sàmm goo xamante ni maanaam dara du la ko dara du la du la du la du la du la du la du la du la du la échec loo ndax léegoo leen nit koo xamante ni doo jëm fenn da ngay jël sa programme ba pare nit ñëw dévier la loolu it day feeñ ci diggante boobu ndax yàlla ba muy wax min sari maa xalax min min sari waswaasil xannaasi xannaasi allazi yuwaswisu fi suduri naasi minal jinnati wa naas jinnee nit ak jinnee nit naasi la wax kon ndekete ni am ni jinne amee noonu la nit ñoo xamante ci xeet saytaan lañ bokk nga bëgg a def nii ñun laa li nga bëgg a def loolu kat amul solo te ngaa nii lii kat nangam nangam te fekk kooku si jinne la bokk tax yàlla bi mos la ci loolu mu na ñett turu yàlla di mos la mbir te mbir moo xam dafay jax-jaxal xolam boo koy def loolu ñaaw kon mooy min sarril waswaasil xannaas allazi yuwaswisu fi suduurin naas kon yàlla ñett turu yàlla la tudd foofu mooy bi rab bi ak Malick ak Ilaah Nass ngeen muslu ci mel mbir kon su boobee ndaw bu dee judd na rab lay soxla te mooy ku ko yar xelam ku ko tarbiya fexe koo sàmm ba nga xamante dina esek ci lu bari loolu nag bu jàllee mooy waral nga mën a ma nga mën a nga mën a tëb benn bi dem ca beneen ba te mooy Ilaah Nass Ilaah Nass moom ñëpp a fa dajee waaye Malick Nass nag moom daanaka ñi yaru ndax boo xoolee prison yi wala maison de correction yëpp ñi yaru dong ñoo fa ñii ànd tànk dong ñoo fa nekk soo demee chambre criminelle ñii def lu ñaaw dong ñoo fa nekk ñooñu nag Malick Nass mooy buuru buuru waxambaane yi te mooy alkaati ak police dañ cee esegul kon nag rabbi naas bu jàllee mën na laa suturaal ba nga tag étape dem ci ilaayi naas ilaayi naas nag ñun ñëpp la ñuy dajee ilaayi naas moom soo fa xasee yàgg loo xalaat yàlla mën na koo def bu fekkee sànkoo sa ndaw loo xalaat yàlla mën na koo def loo wax yàlla mën na koo def kon yal nañ fa yàlla yeggale ñun ñëpp yàlla ñu fa yàgg fan bañ koo gàttee yàlla fan yëpp guddi bañ yegg fa ak jàmm su ko defee nag loolu kon ci ngay gisee ni nit ku nekk laaj nag tarbiya tarbiya nag gi ci gën a kii nag gi nga xamante ni moom ngay defee sa xol mu liis sa xol mu nooy ngir nga mën a dëpp yenn yi ndax nag euh, xol bu nooy wala xol boo xam dañ koo dàggi ci la mën defee tarbiya alxuraan sax li muy li muy dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër yàlla bi mu koy jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wala xat yasanna alquran kon ko yàlla jàppandal ci yow rek foog nga am ko kon nag su boobaa yàlla moom mooy daggi sam xel daggi saw fi ba doo jàngal ba lu ko mu daggi sam xel ba sa xel mën koo dégg kon loo gisee ci tarbiya lay dem kon tarbiya googu na rawat na tarbiya boo xam dafa jëm ci ay ndaw ci góor ci jigéen ni ñu war a taxawee mooy na ku nekk fexe xam rôle bi nga xamante ni yàlla sa borom digal na la ko buy góor liñ ko digal mooy mu def yëfi góor buy jigéen liñ ko digal mooy mu def yëfi jigéen kon su boobaa nag loola ak ci aju ñu koy def ay daayira di ko kuréel kon ku ci nekk war na cee mën a bàyyi xel lay sa mbir soo weetee ak soo weete ko yëpp nga wan see ban see bàyyi xel ba lépp loo xamante ni wareef la nga mën dem def ndax it wax dëgg yàlla lu mel nii fu mu amee ci dëkk wala ci koñ ñu bëri dañ ciy bénéficié wu bëgg di yàq naan mën lu toll nii lii kat wartoon a mel nii te fekk na wax dëgg yàlla damay wax ni sëriñ sëriñ lu wala ngay soxna soxna lu bu yàggee nga di soxna waaye sëriñ sëriñ lu bu yàggee ngay sëriñ waaye boo saay saay saay saay loo mën ngaa ba yàgg doon bandi bandi mën ngaa doon yàgg doon saay saay kon lépp lépp lépp loo mën di ko def def lu bu yàlla defee nga bëgg mbirum journaliste bu yàggee nga doon journaliste boo bëggee mbirum oustaz dee ko def bu yàggee nga nekk oustaz soo bëggee mbiru roy gaa yi fi njëkkoon nag nga xam ne ku mel ni soxna jaara ak barkeem bu demee 33 ans la fi la dund ku mel ni maam Fawade Wela maam Astou Diankh ñooñu ñëpp nga bëgg leen a roy tey jigéen war ngaa mën a góorgóorlu sa kent la kàttan ba soo ko defee rek insha allahu rabbi yàlla dina yombal mbir yépp ci boobu la mbir su ko defee nag ngeen xam ni daal yàlla bi muy wax ci alquran li nga xamante ni moom mooy mbiram cofeelu ak mbiram na ngeen xam ni xoolee moo tax muy wax kon nag bu boobaa na ñëpp bàyyi xel xam ni daal. xol na nga ko laabal looy bëgg nga bëgg ko bëgg goo xamante ni bëgg bu jekk lay doon bañ a gis tal bañ a trisé bañ a gis tal bañ a mooy ngay bëgg-bëgg mbir wala ngay topp mbir te mbir ma ngay topp bëggoo na ngeen bàyyi xel ni képp koo xamante ni soobu nga ci yoon te yoon woo xam ne dangaa fas yéenee jaamu yàlla wala nga fas yéenee def ñi de dawaayir ak lu mën ci doon yoon woowa boo ca sooboon na nga bàyyi xel ni àngal lay fakkatal moo xam góor la moo xam jigéen kon nag su boobaa nañ bàyyi xel kum ci moo bu fekkee parents yi dañ leen dimbale xale yi ba fexe ba dimbale leen fexe ba jariñ leen ndax it wax dëgg yàlla damay wax ni ku nekk ak sa wërsëg wala ku nekk ak sa sens waaye nag doom nga am ko am boo xamante ni am bu am am bu tey la mu judd ci farataas yàlla ak sunnaas mu ñëw mel neneen kon loolu ku nekk war na koo ganam ci sa kër loolu nag ci kër yi lay déparé bu fekkee départ na ci kër yi ba mu ñëw nag mi ngi arrivé ci ci bërëb yu mel nii te mooy daayira ak daara su ko defee daayira ak daara àttan na nekk kon nag su boobaa nañ ci bàyyi xel xam ni moom warta produit ay bandi warta produit borom xol bu dëgër warta produit wayu bu fekkee jigéen lay produit jigéen ju baax ju yiw ju sell lay produit bu fekkee ji góor lay produit góor la boo xamante bu baax bu seetlu boo xamante yëkkati tubay moom la war a produit kon nag loolu nañ ci gën a bàyyi xel bu baax yéen ñi ci nekk kum ci kumoon na nga góorgóorlu sa kent lay kattan bañ a rusloo baay bañ a rusloo jëwriñ daayira bañ a rusloo bi bañ a rusloo tamit fi nga ñu defee ay daayira ndax kum ci kumoo day seet ndax damay wax ni nag Euh, mbiram daayira wala mbir mu mel nii soo ci nekkee yàlla dafay stoppé sa dund dund doomu bu doon ni chrono la bu ngeen nekkee ci bërëb bi mel ni yi tuddee yàlla dañ koy stoppé du bokk ci li ñuy marqué ci dund gi moo tax bërëb bi mel nii boo fi nekkee nga euh, bokk na ci li nga xamante ni moom la ñuy dénk kilifa yi ndax wa awlaadi wa waladi fil bayti fi xalwati wa fi ndax sa doom bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy sa say dëkkandoo ci si ak boo wéetee ak boo wéeti li ni ngay nekkee ñoom ndax ak defaru dafa jar lu nekk bu njëkk góor yàlla yi buñ ko namaaroon dañ doon ci àll ba di lekk xob di naan ci ndoxam taataa yi ba jot seen borom léegi nag buñ ñëwee fekk lépp changé suñu maam yi wala suñu yaay yi wala suñu baay yi liggéey nañ loolu yëpp nag ba nañ ko doon defee rek loo ci gis changé na lu ci gis rek am na innovation kon na su boobaa ngalawaay buñ ko yombal waaye ngalawaay buñ ko sàgganee li gën a bon nag ci àdduna mooy mujjee posé ba pare posé bi réer la loolu lu jar a bàyyi xel la su ko defee nañ ci gën a bàyyi xel rawat na nag jikko joo xamante ni nag jikko ju rafet rafet ndax yonent sallallahu alayhi wasallam dafay wax ni yàlla rafetal na sama jikko ni yàlla rafetalee sama askan noonu la ko yàlla rafetalee sama jikko léegi mu ne moom ci benn hadiis ne dafa gis a safara wala aljana mu fees del te ñooñu ñëpp ña ngi koy duggee ci sababu jikko joo xam ne jikko ju rafet la bu ko defee nag kon nag bàyyi xel ni jikko ji rafet jikko ji rafet lak la war a doon rawat na nag jikko joo xamante ni jikkoy dëkkandoo la waaye jikkoy dëkkaale la kon nag bu fekkee bëgg nañ dëkk bi rafet ba ku nekk mën a bàyyi xel sa nañ nañu nañu nañu seetlu la wante xol yi na ku si nekk yéwénal sa xol laabal sa morom yéene ji nga xamante ni moom koy yore nga beesal ko ci sa morom te mu rafet moom it yéene ji yor mu beesal ko ci yow kon nag suñ ko defee rek incha allahu rabi ñi ñëpp da ngeen doon dëkk dëkk boo xam ne dëkk bu yaatu lay doon dëkk boo xamante ni bu bu bu bu sedd lay doon waaye nag bu fekkee ku si nekk rek da wax ni li ci man li ci man ci ñaaw def da nga koy fexee dañuy feeñal day doy day doy waar kon loolu nañ ci ñëpp gën a bàyyi xel daal xam ni daal yonent moom mooy wax ni daa xool a a safara fekk fa ay borom musóor nga fa nekk la waral nag mooy nag ñoom duñu sàmm duñu sàmm duñu sàmm kóllëre wala duñu sàmm kóllëre si nëbbu secret kon nag su boobaa nag dañ kumpa bu fekkee jigéen ji nga xam dafay woote woo yàlla war naa jéem a defar ba nekk sang biir bañ di dañ kumpa bañ di am bañ di dañ kumpa waaye ci mu am sutura rawat na sutura soo xam ne daf koy dëkkaale fi nga xam ni fi la dëkk ndax loolu tamit tax na boobu ëllëgee li la yàlla di dimbalee bu fekkee da nga am xéwal goo xam dafa waroon ñëw jël ci yow lu mel ni jigéen dafa am am attitude góor moom moo koy bëgg gis di ko bëgg bu yàlla dogalee lu mel noonu am dina yomb ndax dañ naan kii bu baax la kon nag jigéen moo waral jikkoom dafa gën a war a gën rafet ko góor ndax jigéen moom mooy magasin yàlla te jigéen dafa weex duq lool kon na su boobaa na si jigéen ñëpp gën a bàyyi xel rawat na nag yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci daayira bi di tarbiya bokk ci daayira bi di cotiser seen ay dërëm ba organiser lu mel nii kon na fexe leen ba di ko yu rafet yooyu yëpp valeur yu rafet yooyu yëpp ngeen écouter ko seen bopp fexe ba téye ko rawat na seen diggante ak seen ay way jur seen diggante ak seen way jur rawat na nag way bu jigéen ndax yonent sallallahu alayhi wasallam nit ñëw na ci moom di ko laaj nit ñëw na ci moom di ko laaj kan lay toppatoo mu ne ko sa ba sa yaay sa mu sa sa sa sa ummu sa suma ummuka sa yaay ba mu ñetti yoon mu doog ko wax kon ndekete sa yaay nga war a gën a yërëmaal yërëmaal yërëm lu bari ndax sa yaay bu fekkoon gorewu doon xam ne mun naam doo ñëw ci àdduna sa yaay bu fekkoon mun toon dégg mun toon natt kon mun naam doo ñëw ci àdduna kon nag sa yaay war nga koo bàyyi xel waroo wax nga di ko cikutu waroo warut la la laaj nga am ba pare di teen defal ci bañ boo jox kon yooyu na ci ñëpp gën a bàyyi xel rawat na nag yéen ñi nga xamante yéen ay jigéen ndax it lépp loo xamante ni lépp la ngeen ko ci diggante boobu rek na ngeen xam dañ leen ko fay damay wax ne ku bëgg doom ji baax wala nga bëgg ku baax ku la toppatoo fexeel ba yow ñi nga war a toppatoo ci teral ci mbaax nga fexe ba teral leen soo ko defee rek ñu fay la bor ndax yàlla moom maandu na maandu goo xam ne wala taasul waasul bi sorox la ngay fekk ci alquran amul kenn ko xam ne da ngay def bàkkaar bàkkaar ba mu jël ko ñàkk a maandu tax mu jël ko fay maanaam ku ci nekk la nga jëf rek la lay fay kon nag su boobaa na yéen ñi nga xamante ni yéen a yéen a nekk fii nekk ci daayira bi ci euh, balanaar gi fexe na góorgóorlu ba daayira bi jëm kaw waaye ngeen di ci fexe di wax lu baax waaye ngeen di ci fexe di def lu baax waaye ngeen di fexe tamit ba lépp loo xam jën na ci rafetal ngeen rafetal ko rawatina àq yi nga xamante ni nag moo dox seen diggante ak seen ay dëkkaale moo dox seen diggante ak seen ay dëkkandaw kon loolu na ngeen ci bàyyi xel bu baax lépp rek ci rafetal ndax wala taxudu iqlaaqul kiraami fa innama iqlaqul insaanu qad saara an zaara loolu la woykat ba wax bu ko defee nag jikko ak rafetal daf ci am solo lool rawat na nag fi ñu nekk fii ngeen nekk fii ngeen nekk ci génération nii ngeen tolloon bàyyi xel ndax ñi ñu bëri ñu ngi leen seet fu sori ñu bëri ñu ngi leen xool fu sori ko yàlla yàlla def leen ngeen mën cee bàyyi xel bu baax ci loolu ngay gisee ni ki nga xamante ni nag moom mooy yar wala moom mooy tarbiya toujours comportement am bu leen ci di xool ndax it yàlla dafa yéeme li nga xamante ni moom mooy génne njariñ yëpp te boo xoolee li war liy génne njariñ ba mun naa mi dansé kon ci ngay déggee ni kiy wax waroo koo déglu yow daal xoolal lam lay wax nga mën koo jariñoo ndax toujours doomu bu demee ba gis boppam ci liñ koy digal rek jafe-jafe am moo waral mag ñi doon ñaan ba mu yàgg ñu ne yàlla na yàlla musal ci gis sa bopp gis sa bopp lu bon la kon damay wax ni sax lépp loo xamante ne yàlla jox na ko comme xéewal soo ci gisee sa bopp rek mu commencé ñaaw soo amul sens mun naa rocc mun naa rocc si mu ba bàyyee la bàyyi la mën te yàlla dafa doon loo xam ni jëfam jëfam yëpp yëpp yëpp lii nu mën a amee rek la sant kon nag su boobaa nag ñëpp bàyyi xel xam ni kii yar ak kii tarbiya toujours ku ñu war a dimbale la toujours ku ñu war a xidmaal la toujours ku ñu war a jàppale ay xalaat la ndax moom dafay sarse woon lu bari ndax seen mbir yëpp moom ngeen ko sarse woon lu ci am nit ci moom ci soxla rek da ngay dem ci moom ni ko ah, man de lii laa bëgg mun laa lii lii kat yee ca gën kon nag su boobaa kooku ku ñu war a dimbale la waaye nag ni nga koy dimbalee fexeel ba li nga xamante ni mooy leçon bu mu def ci yow wala dars bu mu def ci yow wala loo xam ne da ko dala ko wax nga fexee jëfee loolu ba objectif interne boobu loolu kon jar naa bàyyi xel ci ñu ko wax moo xam góor moo xam jigéen bàyyi leen ci xel bu baax a baax ndax ànd boo xam ni ànd ak ndaw yi kese la maanaam deret yomb na jaa tàng deret yomb na jaa kon nag su boobaa yu mel nii su amee bàyyi leen xel ni fii ngeen teg seen tànkam bale du fi teg tànkam mag moo fi teg tànkam kon bu ngeen jàppee ne ay gone ngeen def ay mag ngeen benn góor wax na ko léegi sànq ci wax kon nag loola jaar na sa kent laay kàttan nga taxaw ci sa kent laay kàttan lépp li nga xamante ni moom nga ci am nga taxaw ci bañ koo perte kon nag su boobaa loolu dina tax liggéey bi avancé waaye loolu dina tax ngeen xemmem loo ñeneen ñoo xamante ni bokkuñu ci su ko defee yooyu tax ñeneen ñoo xamante ni bokkuñ ci ñoo bokk ñoo bokk kon nag su boobaa yooyu nag mooy ñu ko waxee mooy fexe ba nooyal sa xol ci wàllam tarbiya bi waaye fexe tamit bay suuraale sa àq dëkkandoo ci ñi nga xamante ni ñoo waaye fexe tamit bay bàyyi xel ki nga xamante ni moom moo la jiitee ci ndimbal la ak nan ko na ko war a taxawoo ci ni mu la ko waxee loolu suñ ko defee rek insha allahu rabbi loolu na yokk daayira bi dina yokk mbir yi yokk mbooloo bi dina yokk su ko defee nag loolu ak li ci aju moo nekkoon mbir yi nga xamante ni moom mooy mbiri waxtaan yi su ko defee leneen li nga xamante ni des na ci dañuy joxe kàddu yi rek di ñaan yàlla yàlla mi nga xamante ni moom moo am dégg ak topp yàlla yàlla defal dégg ak topp waaye tamit di siyaar bu baax ki nga xamante ni moom lañu àndal di site bi ñu àndal di seen Green TV di ko nuyu di ko siyaar moom Salman Ba moom moo ko moom xam naa kuy bëgg lu mel noonu dafa nga kaa woo ndax bi gisee day def ak couvrir su ko defee tamit xam naa di ñaan yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp liñ fi wax mu néew mu bëri yàlla nag yàlla defal dégg ak yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura defal ñu tawfeex di ñaan yàlla aajo yal na yàlla faj ko di ñaan yàlla ndaw leen yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla barkeel seen mbir yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla kàttanal leen loolu yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def di ñaan bés bi yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla dina taaral di sant nag bu baax doomi soxna yi nga xam ne ñu doon déglu ñëpp dañ jégalu ci yi lu ci leen yàlla ci la lu ci leen mi la in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib salli rabbi tabarakallahu masha allah sama gars yi waykat yi yéen kenn demul maa ngi ñëw si yéen tabarakallahu kon mu mel ni suñu conférencière lim ñu andil yaatu na lool ba taxalit lépp rek xay na mënut a nekk waaye dañoo baaxoo nekk si peggam fu mu waxtaanee ba pare rek ñu jóg si lenn yaatal ko si mbooloo mi fi mu njëkkee mooy fexe ba xam sa noon fexe ba xam kan moo du sa noon loolu nag. ñaari inna nga ciy jukki inna seytaana aduwwun fattaxisuhu aduwwa kooku xam na noonam kan mooy sa mbokku innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun kon ku xamee ñaari inna yi xam kii sa noon ak sa mbokk inna seytaana innamal mu'minuun bokk na ci ñaare ba fexe ba def te yàlla tax moo xam bëgg la ak lu mu mënta ko di nekk muy si côté daayere bi ak ñeexee tabaarakallaahu ñooy làmboo daayere bi xam nga waykat bi dafa wax ne almaalu yafna wa yabqa al ilmu saahibuhu maadaama hayyan rafi'a al qadri wa rutba mu ne amma yëf naa wa yabqa alhan musaahibu ñu ne ko lu tax mu ne maadaama hayyan rafiya al qadr wa rutub bëgg te yàlla tax te rek may bëgg gu sax waaye ku bëgg ngir alal alal day jeex de waaye xam-xam dafiy des ba ilaa yamina haasa soo génnee àddina xam-xam bi day ànd ak yow génn ak àddina kuy sa foy sa luy sa est ce que jarul teel koo xam kuy sa foy sa luy sa kon almaalu yafnaa wa yabqa alhan musaahibuhu maadaama hayyan rafi'a al-qadri war a sama waa ji macha allah. ñaareel ba bëgg te yàlla tax ku bëgg ngir xalal su xalal ja jeexee taxul boo am am la am déet ku bëgg ngir taar taar saxul fenn ñun ñii kenn ku si nekk yaa ngi yor maam si kër gi. pour waxam ji rek ñu déggu ko may waxi lan kenn ku si nekk yaa ngi yor maam si kër gi léeg-léeg xale yi boo nee demal bokk ak sa maam mu ah, mer bi ni muy lekkee dafa xaw a kii quoi nangam dafa xaw a kii mer bi nangam mer bi néegam sax doo fa naan am na wala amul kon ku bëgg ngeen taar taar saxul fenn day jeex waaye bëgg te yàlla tax mooy li sax ku bëgg ngir xalal ba ala ji jeexee taxul ko kon bëgg te yàlla tax rek tabaarakallaahu ñaareel ba ragal yàlla wattaqullaah wa yuallimukumullaah andi ne ko ci waxtaan mooy nañu ragal yàlla ragal yàlla dana la ubbee dana la man mii ma dugg si nekk gis fa xaalis bu bëree bëri wallahi day sax billahi gis fa xaalis bu bëree bëri nga xam ne man ak yàlla rek ñoo fa nekk jënd ko fa ak ni xaalis si jël ko si fa jaxaajo nga xam ne lépp lay jënd xaalis sa koy jënd bu amul daal doo ko jënd ma dugg si léegi gis fa xaalis bu bëree bëri jënd ko fa ma ragal yàlla ragal yàlla bu toll ni jënd na si ne ba ba fa xaalis boobu yëpp loolu moy ragal yàlla dafa war am si jeunes yi am si ndaw ñi xale boo xëyee xale bu ndaw xamu ko dara dugg si néeg dañ ko war a yar yar boo xëyee nii su duggee si nii gis fa xaalis weccat ak lu mën ko nekk donte la wax nañ ko sax boo ndiw tey xaalis danaa la rey mu dugg si néeg gis fa xaalis bu bëree bëri rombarke fa loolu mooy ragal yàlla nañ si yar xale yi loolu mooy ragal yàlla loolu moomul ba ko fa ragal yàlla bokk na si tom waxtaanam ngeen ngeen may ma tuuti rek bokk na si xale yi taalibe yi wala lenn si xale yi daayira bi wala lenn si xale yi njaboot gi dem si ngeddal jàmbur fekk fa mangu mangu gu meññi mangu yi meññi wala ay ndarkasa kaso wala leneen ak leneen wala meññeef tey bi pourtant boo si borom na ko damaa bëggoon mango ngay xale bu ndaw laa wax de wax ma waaye xale bu ndaw dem si borom wanag bi ne ko man de mango laa bëggoon wallahi yaramam day daw ne ah kii li ma ñaan ni mënoon naa dem sàcc ko de waaye xoolal ni ma ñaanee. xaar ba ma dem boo nee ragal la loolu bokk na ci ragal yàlla nañ ci yar njaboot gi yar ci xale yi kon tabaarakallaahu yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wax na ko ci waxam wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula mooy fexe bay sàmmante kóllëre yi ndax kóllëre ëllëg yàlla da koy laaj kon nañuy toppatoo kóllëre yi bu baax a baax ñaareel ba mu ne yow mi nga ni nii yaa ngi am yaa am wajur wu jigéen ak wajur wu góor soo la yàlla dénkee ñaar fukki mu rek si misaal ndax misaal sa la nga xam ñu ne jëlal fukk ak juróom jox sa yaay yéen tamit loolu la wax imaam moo ko jàngale léegi pour taxalee ko jëlal ak juróom ñaar ko juróom ñaar ko gis nga am jëlal ak juróom yi jox sa yaay yéen tamit ne ko ak kan mu ne ko ak sa yaay ak kan mu yaay ba mu ñetti yoon. kon fukk ak juróomi sa yaay ko moom juróomi joxal sa pap waaye bu fa nekk naan paa yor ceeb bi moo yor ndox mi moo yor courant bi loola yeneen bi waxu ko de jëlaat fukk ak juróom yëpp jox sa yaay juróomi nga jox sa pap waaye moo njàngale yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon ñi ngi sant di gërëm si temps lii ngir bañ a ta guddal temps bi waaye sant nañ gërëm nañ bu baax a baax wallahi gërëm nañ bu baax foo de ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax mi ngi ànd ak imam Seck ak sama cameraman bi nga xam ne tabaaraka la fépp fu ñu jëm mi ngi ànd ak ñun wallahi am am bëgg-bëgg lool si mbir mi ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag di nuyu kilifa yi fi toog yëpp macha allah ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yeggali seen i bébé si xale yi yeggali seen i bébé si njaboot gi njaboot gi yàlla bu ñu rus yàlla bu ñu rus si ñoom yàlla bu ñu rus si kontaan nañ bu baax a baax yéen waa daayira bi gën leen a jàpp ku nekk si daayira rek nekk si leneen te lii ngeen nekk mooy li yéen waykat yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm sànq rek toll fële sa kër ga dégg way yi si kër si neex na lool macha allah ma see arab yi ni ngeen koy waxee macha allah yal na yàlla def leen mag yal na yàlla taaral bari yàlla ngeen am li gars yi di am yàlla ngeen toog muy dox gars yi dañ naan toog muy dox jeex na fi waaye ba léegi mi ngi am yàlla ngeen toog muy dox yàlla mën na ko yàlla moom moo ne ud'uuni astajib lakum wa axiru kalaami ani alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di nuyu ci nuyub euh, bi maa ngi leen di sant bu baax bi mosoon naa seen benn xale foog mooy seen président bi ñu ko wax Ibrahima Sow xale boobu maa ngi ko jàngal alxuraan jàngal ko ba wàcc yar ko tamit yar bu baax woon ko ne foo mën a ne rek te la ma la teeloo loolu laa bëgg nga sax lislaam moom baa la xamal bëgguma la xamal leneen du dul loolu fa naa mu jaxasoo ak kii non man miinu ma bu baax waaye gis naa bu demee ba formé seen daayira bi mosoon jóg Ibrahima pour ñu dem sama kër doon fa doon def daayira bi yaakaar naa amoon na ay kàddu yu ma leen joxoon ci lu mel nii ñëwoon naa leen nag ci ngeen du ngeen tàmbali nii. su ngeen ko continuer ànd ak ci ak yàlla te yàlla dong dong dong dong tax kese kese moo tax ngeen formé yàlla dong moo tax ngeen di ànd ci lii te amuleen ci beneen gis te du dul yàlla dong da ngeen ci jëmee ba fu nga xamante ne da ngeen da ngeen ci da ngeen ci yegsi euh, wax dina moo leer bu baax euh, waaye dara toll na mbir mi yàlla dina leen ci gunge ba nga xamante a dina àgg foo xam ne yéen seen bopp yaakaar leen ko te jafe naa kaddu boobu nee naa leen ngeen téye ko bu baax téye seen daayira bi ànd leen dongo te yàlla si ngeen àndee dongo te yàlla tax wallaahi da ngeen dem ba fi nga xamante ne dinaa expérience boo xam ne kenn ku nekk yàlla mën na la ci jaar eh, soppi sa jikko jikko ju rafet ngay doon. te gis naa xale yi ni àndee nii rafet na trop ak nu ñu fonkantee nii rafet na trop ñu ngi ànd ànd bu baax te loolu ko maa ngi leen koy sant gis naa sama kaddu yi ma leen joxoon ba tey ñu ngi koy continuer euh, kon kaddu yooyu tamit mel na leen ba tey xam nga xale ñu ne yonent dafa war a koo gis baax. ñaax ko mu gën a yokk mu gën a góorgóorlu ci lu baax lu muy def waaye gis naa ni ma leen ñaaxee woon ñaax boobu noonu ni ma leen ko waxee ngeen góorgóorlu ci loolu mu ngi continué te defe naa ba tey mu ngi continué te ay xarit jamono boobu ñu formé woon moom lu bees leen ànd leen doomu teel te téye leen koy teel bu leen ko téye ci koy kenn jàpp leen ko teel a tax ànd ci ak yàlla ak yonent yàlla Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lii de mosoon naa leen ko te gis naa ba tey loolu ngay continuer kon maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin loolu rek laa wax pour ñoom nañ gën a góorgóorluwaat tamit nañ am pas-pas ci yàlla nañ tiindilu si seen bopp ci yàlla nañ teg seen bopp ci yàlla buñ ko teg fenn nañ ko teg si loxo yàlla teg ko te ñu ànd ak ci loxo yàlla ci bi jaay nabi Moustapha maa ngi leen a ñaan yéen daayiratu bi ngeen góorgóorlu bu baax ngeen diyante bu baax bu leen bu la ci laxas dara lu dul yàlla dong ak yonent yàlla Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngeen continué ci lii te lii day continué ba foofu incha allahu taala gannaaw yàlla moom dong moo tax ngeen jublu si loolu waaw maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ngeen góorgóorlu yokkaat fu ngeen tolloo tey na ngeen gën a jàppaat ci loolu na ngeen gën a jàppaat ci lii ngeen gën cee góorgóorlu incha allahu taala kon alhamdulilah maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen gërëm jëf محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة المسلمين السيخ صغار وكبار رجال ونساء أحييكم بأشكى تهية من أخلاق القلب إلى أجسامكم المنورة تحية من عند الله وأنزله إلى رسوله محمد خاصة لأمته وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñogi sant yàlla bu baax di julli ci yonentum bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di dolle sant yàlla it bu baax ci kattan li mu may ak wir ba ñu mën a teewee ci ron tant bi nga xam ne suñu doon tànn bisi yàlla yi ci kaw suuf dañuy tànn bis yu mel nii tuddee ko bisu sunu borom yi kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla gërëm lépp ñoo ngi nuyu ñëpp nag góor ak jigéen mag ndaw di jiital ci nuyu bi kilifa yi fi teew muy kilifa gu góor ak kilifa gu jigéen di jiital ci nuyoo bi nag al imam mooy imaamu dëkk bi di nuyu conférencier yi mooy muhadarat yi nga xam ne waxtaanee nañu fi mawdoo boo xam ne dafa tënku yataallaqu fi mawdoo an mawdoo maanaam duut benn mawdoo la ñu jàngale waaye dañoo jàngale mawdoo boo xam ne dafa aju ci ay mawdoo yu bëri nga ne tey benn bu ci nekk rek benn tomb benn maxwar bu ci nekk rek doyoon na ñu aj ku ci xulux muy jikko nga xam ne te it seen wax am na isbaat damay wax ne nit fekk yaa ngi wax xam-xam te waxoo xaala Allah wax dafay mel ni dafa xaw a neen te ñi fi doon conférence li dégg seen wax yëpp dañu naan xaala Allahu wala xaala rasul yonent bi ba muy dem daf noonu bàyyee naa leen ñaari mbir mu ne ñu bàyyee naa leen ñaari mbir taraktu fiikum amrayni lan tadilu man tamasaktum bi ñu ne ko mooy ban mu ne kitaabullahi wa sunnati rasul mooy téerib yàlla bii di alquran ak xadisam yu tedd yi te li ñu fi wax yëpp génnut alquran génnut xadis man nag li ma gën a marqué ci tànt bi mooy Seydina Ousmane muy Alaaji Ousmane nga xam ne ci turam ci lañu ñu teewee fii ci bis bi ñun sunu doom la ndax ñoo baayam ñoo bokk bay mu yëgal ñu ko dontu ko ne amul woon fursa bi sax waaye yitteem ak éducation bi nekk ci moom ak siffa bi nekk ci moom lum ñu fekkoon ñu jàpp bu yéegee yégee bisam dañ koy bàyyi ñëw ñoo xam ne nit ku neutre la te gis nga balaa ngaa xam ni nga toll si nit ñi nga soxlaal nit ñi booba ngay xam ni nga toll si nit ñi kon moom war naa xam tey ni mu toll si nit ñi ndax bi mu soxlaa ay bokkam yëpp bàyyi nañ seen yitte teew kon ñu ngi lay jëfal bu baax di la ñaanal yàlla it daw nga waaye yoon bii nga teg sa tànk yàlla na la si yàlla jàppale barki Seydina Mohamed di remercier encore maanaam daayira bi mu àndal mooy ndax dafa am lu may bàyyi xel mooy. mbir soo fi ñëwee nga gis ñi ko ñi ko yore nekk ay xale mbir moom am ci yaakaar dafay def te boo xoolee ñi ma fi nekkal ñëpp en la vingt ans yaakaar naa ku ko ci nopp bëri wut kon loolu da ngay gis ne mbir mu jëm kanam la nekkul lu yem fii dafay dem kon yéen ñi ko séq bu leen ragal dafay dem te bu ñu delloowaat ci caxtal l'islam ar-rujuu ila al asli aslun maanaam mbir mi soo ko bëggee xam da ngay delluwaat ci cosaan la boo xoolee ci l'islam démb cosaanam mooy ay ndaw ñoo ko doon taxawee da nga gis yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy minhajul salim bu ñuy jël repère wala ñuy jël référence wala ñuy jël modèle bi nga xam ne moo gën a impacté ci àdduna bi yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñuy jël mais soo ko xoolee moom jeune rek la doon utilisé benn ma jël ko ci jité ko ci mooy Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu bi ko yonent bi di takkal drapeau jox ko ak arme mu di ko jiite di dem sànq. nga xam ne booba ñoo doon deuxième puissance ci adduna bi nga xam ne romain yi ñoo ko yilifoon amoon doole loolu dafa takk drapeau tànn ci biir saxaaba yi tànnul kenn tànn xale boo am 18 ans def ko mu nekk criard de protection mu nekk général jox ko armée nga gis ne loolu yonent bi dafa am li mu jàngale 18 ans la amoon boobu am na ñu ne 17 ans sax kon buuba xale la kon yooyu bi am na lu mu présenté foofu te armée boobu nee na ñoo Omar ibn Khattab ci la bokkoon Seydina Abubakar Siddiq ci la bokkoon. te boobu ñoom ñëpp passé nañ quarante cinq wala dugg nañ cinquante ans mais yëpp dafa tànn Ousaamatu ibnu Seydi ko armée ba ñu bëri ci saaba dañoo critiqué limaasa antu an tuuti Ousaamatu ibnu Seydi bi qiyaadati Fassine Diaïs walakin rasuluhu huwa man allama sali mooy ki xam loolu kon dafa mel dafa lu muy jàngale kon yéen jeunesse bi nga xam ne yéen a ngi jóg jaar ci yoon bii mu yoonu l'islam jaar ngeen ci yoon bi gën jaar ngeen ci yoon bi nga xam ne mooy minhajul salih bi mooy voie nationale bi mooy yoon bi gën ci yoon yi kon ñu ngi leen ci remercier bu baax di leen ci encouragé te di leen si ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën leen a jàppale ndax kat arab dafa am lu muy wax mu ne kullu si sa sa'nin kabirin kaana min qablu haqira gis nga képp ko gis ñu di ko naw tey rek démb ci département bu tuuti la bàyyi ko te kii bi may ubbi conférence am bi wax na leen ko nan jubel di jàng booba métti woon na ay yoo ay fen ay nangam lu nekk ñu ngi koy jànkuwante tey mu ngi toog ñu tajal leen ay photo yi jox leen micro yi wax ñëpp di leen déglu kon ku lu si sa nin xaq yi ku lu si sa nin kabiir kaana min qabla axir kon arab li ma wax dëgg la kon loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax xam ne seen lii àdduna mën nay dox ba mu àgg fu nekk kon bu leen ko xeeb na ngeen ci jàpp bu baax jàngal nañu leen nag li koy orienté nag tey tey orientation bi mooy jikko gis nga yeneen bi bi ko yàlla di tagg taggewoon ko ci dara wa innaka la ala xuluqin asimi la ko wax yow yun teel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taggeewuñ la ci taar taggeewuñ la ci askan mais lu ñu la taggee mooy jikko te yaakaar naa jikko la fi conférence bi doon jàngale laqad kaana fi rasulillahi encore uswatun hasana kon yun teel Muhammad jikko rek la yeneen bi la la nekkee repère ci nit ñi kon yéen it su ngeen bëggee yoon bi ngeen jaar mu mën a àgg ngeen jot ci seeni amaal dafay laxasoo ak jikko bu rafet jikko bu nag dara jiituwul ci al adab mooy éducation mooy yar mooy yar ndax dañuy wax ne arab dafay faral di wax ne in wudi al ilm wal adab ya saamia an taxtar al adab bu ne suñ la tegalee ñaar xam-xam ak yar man lay dégg maa lay dénk yow mi may déglu demal nga tànn yar soo amee yar rek xam-xam teew waaye su yar amut xam-xam du kon bépp yoon woo jaar soo àndee ak éducation rek yoon boobu dina jëriñ kon ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di confier ngeen ànd ak éducation ci yoon bi na ngeen xormaal kilifa yi respecté ndaw ñi respecté seen i morom te it xam ngeen xam ne yoon bii yoon la boo xam ne mag ñi ñoo ko fi tëraloon daayira tuddiwul tuddul daayira waaye dawra la maanaam boo xam ne mag ñi ñoo ko fi tëraloon dañ koy joué rôle nag mooy ñu la tegal yow nga war koy ñëw joué te da ngay gis ne dafa am rôle bu ngeen di bëgg a tey ci daayira bi mag ñi ñoo kon ñu ngi leen di ñaax bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla sàmm leen yàlla yàlla dëgëral leen yàlla na yàlla xaar leen ñu ngi leen di présenté balaa ñuy daaneel suñu kaddu mbokk yi nga xam ne ànd nañoo Ousmane teew fi wala teewal Ousmane ci bis ngir jëmmam te yàlla rek tax nga xam ne ñii ay moromam lañ di ay mbokkam di ay jàngkat comme moom. bokk na ci Aboubacar ma leen nga xam ne ñoo bokk papa muy Babacar Boubacar Camara moom moom ñoo bokk papa moromam la jàngalekat la ak Alxaaji Diop al oustaz moom it jàngkat la moromam la Abdallah Ndiaye moromam la jàngkat la ak suñu mbokku taalibe bële xay na xaw naa fàtte tur ak soxna yi nga xam ne ay yaayam lañ ñëw fi teew ngir jëmam rek tax kon lii nañu xam ne moom moo ko leble su ko leble wu doon ko doon lii du ko am suñu wanoon leneen ab lu ñuy xeebu xeebu xeebu jaraloon ni ñun ñu bàyyi suñu yitte ñëw fa waaye daf ñu won lu ñu doy lu ñu nawloo te mooy yar ñu ngi koy ñaax nag bu continuer ci yar boobu ndax kat al adab laa yubaa wala yustara kenn du ko jaay kenn du ko jënd kon ñoo ngi lay jaajëfal bu baax di ñaanal ñëpp jàmm di wax yàlla nañ ko fekki déwén te déwén bu ñëwee yàlla na gën a neex te gën a rafet yàlla na bokk ci bis yi gën a rëy bokk ci bis yooyu dëkk ci Sénégal bokk ci bis yooyu dëkk ci biir réewum Gàmbi mii mu bokk ci bis yi yàlla gërëm it barke Seydina Muhammad in uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullah كما منفعنا لنا من خلنا ربنا واغفرنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بحرمه يا مقيم العسل يا قد هاجر يا قد هاجر وجمعنا وافرج كربتنا وارزقنا من اجل عبادك بالسر اللهم صل على روح ذات سيدنا محمد سر الوجود الذي قد كان نورا تحدد جميع الصلوات ارض المحبه وترفعنا الى المحراج حضرة ميراث ساتك ومدد صفاتك وعلى اله حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره المقدار العظيم صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين nga ci aju fa ñu ko jàpp ci la